aousubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin Pape Khalifa man maa ngi tudd Abdoul Aziz Diop di doomu Alhaaj Makhtar Diop bu soxna Aseetu Malick bu Cheikh Alhaaj Malick radiallahu taala anhu sant yàlla rek bi ñu ko fekkewaatee ci gàmmu gi waaye sant yàlla ci lenn xam ne lii ñaan gu nangu la ndax 1902 ba ñu ngi si 2015 muy 113e édition bañ koy tàmbali njël benn ba sew na waaye fi mu agsi tey daf lay won rek sa cofeelu maam ci yonent bi sallallahu alayhi ak pas-pas bu dëggoom waaye dama ni cérémonie officielle bi tamit dafa mel ni mooy euh, suñu naan message à la nation bu président délivré bii tamit mooy message à la nation bu xadara bi ndax njaboot gépp a fi daje mu nekk moment boo xam ni moment de communion la entre toutes les confréries yi c'est lii lépp rek dafay dellu ci moom mi noonu ixwa tous les croyants sont des frères waaye dellu aussi ci dimension prophétique bi suñu waxee dimension prophétique nag dañuy wax ni sa maam Cheikh El Hadj Malick Sy ak maam Abdoul Aziz maam Serigne Babacar ak ñi leen jur ñëpp dañu suivre les traces du prophète c'est le modèle prophétique qui en continuité loolu moom mooy sos li en tout cas sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla rek lépp luñ fi ñaan lépp luñ fi yaakaar yàlla ful ko ci barke borom guddi gi sallallahu alayhi wa sallam